Euh, bismillah kon suñu gan gi ñuy dalal tey mu ngi tudd Serigne Bousso comme ni ma ko waxee ci tàmbali bi dëkk fële nga xam ne mooy Touba Madiana bu dee lu jëm ci wàllu jaar-jaaram moom nag mi ngi génnee ci école bu mag bii nga xam ne mi ngi nekk université Cheikh Anta Diop Dakar ñu koy wax EBAD muy école des bibliothécaires archivistes et documentalistes nga xam ne ab école la boo xam ne ñu ngi ko créé ci 1962 ci jamono yooyu nag tuddul woon EBAD waaye mi ngi tuddoon. CRFB muy centre régional de formation de bibliothécaires nga xam école bu mag a mag la boo xam ne ba waxuma la Sénégal rek waaye bari na tey ay documentaliste archiviste yoo xam ne fa lañ jaar fa lañ génnee fa la nga xam ne mooy EBAT ci région bi waaye tamit ci sous région bi muy Afrique ak li nga xam ne mooy li wax Afrique de l'Ouest muy Afrique au sud du Sahara ñu bari ñu génne ci école bu mag boobu nga xam ne mu ngi tuddoon centre régional de formation des bibliothécaires te biñ demee ba 1967 nag lañ ko changé tuddee ko EBAD muy école des bibliothécaires archivistes documentalistes du Sénégal foofu la génnee kon moom section document documentaliste fa la jaar kon moom documentaliste la moom Serigne Bousso mi nga xam ne moom la ñuy dalal tey documentaliste la waaye ginnaaw bu mu génnee EBAD googu ci université Anta Diop jaar na université Bordeaux bi nekk France ak yeneen institut de formation yoo xam ne dañoo nekk bitim réew te spécialisé wu ci li ñuy wax science de la communication ak lii nga xam ne moom la ñuy wax bibliothéconomie bibliothéconomie nag xam naa bu ñu ko waxee ñu bari duñ ko xam waaye ñun suñ formation yàlla def na am na lu ñu ci jàng bi ñu nekkee INSEPT muy école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel xëy na professeur bañ fa am mën naa am mook Serigne Bousso dinañ xamante waaye mi ngi tuddoon Njoogu Njaay moo ñu doon jàngal ñun bibliothéconomie nekk matière bu am solo ci wàllu li nga xam ne mooy euh, wàllu euh, bibliothèque ak document ak euh, li nga xam ne moom la ñuy wax archive ginnaaw bu mu jógee ci institut yu mag yooyu jàng fa li ñu wax science de la communication ak bibliothéconomie mom nak walu bi nga xamne fa la spécialisé wu xam nga wàllum jangum tubaab day am fo xamne bo ci tolo da nga spécialisé wu da nga nan man domaine bi la jël fa lay gëna xotal sama gëstu ak sama xam-xam kon mom mi ngi spécialisé wu ci li ñuy wax information alimentaire information alimentaire li tax té mom dafa nekkon kat ci benen institut bu mag bu nekk Sénégal ñukoy wax ITEA muy institut de technologie alimentaire batay ITEA gogu Amna kuñ fa xam suñu benn xarit bu tudd Abdourahmane Sène moom aussi documentaliste la te mi ngi ITA yor loolu nga xam ne euh, pàcc gu bu nga xam ne suñu invité tay bi muy Serigne Bousso yoroon na ko ci foofu ci ITA am na suñu benn xarit bu tudd Abdourahmane Sène xëy na dina ko xam moom mi ngi ITA moom ba tey documentaliste la ci ci ci ci bërëb bu mag boobu. bu dee nag lu jëm ci wàllu li tax ñu invité ko fi tey muy li ñuy wax la question palestinienne ki nga xam ne mooy suñu invité di Serigne Bousso mbir mi daf koo yàgg intéressé depuis 1978 depuis décembre 1978 ba fii may wax ak yéen mi ngi ciy def ay gëstu mbir mi intéressé ko lool mu ciy def ay gëstu di ci def ay taxaw seetlu loolu sax dem na ba tax mu bind ci mémoire de fin d'étude maanaam bi muy jeexal am njàngam mémoire bi mu bind mu ngi ko jëmale woon ci li nga xam ne mooy question palestinienne conflit bi nga xam ne moo am diggante Israël ak Palestine te depuis boobu ba léegi mi ngi ko jox cër bu baax di ci def ay taxaw seetlu waaye tamit di suivre bu baax a baax actualité bi ak évolution bi nga xam ne conflit boobu am na ko ba tey ki nga xam ne mooy suñu gan gi tey di Serigne Bousso nee naa leen ci conflit israélo-palestinien ci la bind li nga xam ne mooy mémoire de fait d'étude am waaye tamit mi ngi koy topp di saytu soubresauts yi ci am yëpp avancées yi ci am yëpp recul yi ci am yëpp convention yi ci am yëpp ak lépp loo xamante nii ay traité la yoo xam ne signé nañ ko mi ngi koy topp bu baax a baax a baax a baax ndax dafa yàlla da koo dimbale mu am ay xaritam yoo xam ne dañoo nekk fële nga xam ne fa la ma di xewee muy Palestine muy côté fi ñuy wax Gaza waaye tamit côté bi ñuy wax Ramallah zone yooyu yëpp am na ay xarit yoo xam ne dañ koy faral di jox lu bari ci document ci ay document mu mën di xóotal gëstam ci wàll boobu kon nag li muy wax nekkul loo xam ne da koo làmbat waaye lu mu xam la lu mu maîtriser la kon loolu moo tax tey ñu koy dalal fi nga xam ne mooy daayira génération soppe Serigne Sambay jox ko thème bu am solo bi nga xam ne mooy conflit israélo-palestinien dimension religieuse et géostratégique ki nga xam ne mooy suñu gar gi it ñu fàttali ne bokk na ci association internationale des bibliothécaires archivistes et documentalistes loolu nag dina xat yombalal fépp foo xam ne tey document la ak fu mu mën di ne ci monde bi moom bu ci bëggee am accès dina ci am accès ndax kuréel googu nga xam ne ci la bokk muy kuréel gu mag dafa dafa dafa dajale borom xam-xam yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu documentaliste dañuy wàllu ci wàllu dañuy yëngu ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu document wàllu archive waaye tamit wàllu bibliothèque kon sëriñ bu so bu dee yaa ngi teewlu rek mën ngaa dugg ñu tàmbali émission bi émission bi nag ni ñu koy faral di demee mooy dañ lay bàyyi nga développé thème bi soo développé ba noppi ñu dugal ñaari jëwriñ ñu indi ñaar gàpp ñetti laaj bu ñetti laaj yooyu jeexee na ñu tijji antenne bi bu ko defee képp ku bëgg dugg rek dugg indi sa laaj nga tontu ko ci kon ñu ngi lay dalal bu baax si daayira génération soppe Serigne Sam Mbaye mi nga xam ne Serigne Jili Jaw Sam mooy jëwriñ ji waa kër sëñ Sam nekk ci muy sëñ maam Cheikh sëñ Ibrahima sëñ Abdou Khadir waaye tamit ki nga xam ne mooy sëñ maam Aline kon ñu ngi lay dalal bu baax di la wax ahlan wa sahlan marhaban bikum dalal ak jàmm ci sa biir kër kon bu ko defee mën nañoo tàmbali waxtaan bi bismillah aouzu ومن الشر كل شيطان مريض ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل جبار عنيد بسم الله السميع العليم الحمد لله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى خير قديمه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبشيخنا أحمد القديم وسيلة آه، salaamualeykum wa rahmatullah daayira soppe Serigne Sam xam naa du ñu mën a lim ñi nga xamante ne ni moom la sëñ Abdallah lim léegi lépp waaye kenn ku ci nekk nuyu nañ ko ci turam ak santam di leen balu ak di leen bal ak ci weer yi nga xamante ne ni moom la ñu génn di ñaan yàlla lu nu ko ci jaamu ak lu nu ko ci sant ak lu nu ko ci ñaanu mu taaral ko ful ko nangul nu ko lu nu cëri ci mu jéggal na ko moom jéggalaakoon bu mag bi nu am yéene nag dikk ak yéen ci lii nga xamante ne ni moom euh, lanu daayira bi wax nu àddu ci tey euh, dëgg nag fépp la nekk dañ koy gëstu rek bu ñu ko gisee ñëw séddoo ko nañu euh, koy séddale itam dañ caa am xalaat Euh, lu ci njuumte nu jéggalu ko ci jiital waaye lu ci jubit ñu xam ne yàlla borom bi moo ko def waaye yéene ji moom mooy wax leen li nga xamante ne nii fala mbir mi tàmbalee fala jaar ba ëgg fii nga xamante ne nii foofu la ëgg si tey waaw ñu dellu ñëwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah sant bu baax Cheikh Abdallah Cissé moom euh, présentation bi mu def xam naa taaral na ko lool euh, waaye li muy jéem rek moo di fi nga xamante ne buy jëriñ nekk na fa ñu jéem koo jukki tënk ko ci anam yoo xamante ne ni dinañ ko jébbal doomu aadama yi jëriñoo ko euh, li nga xamante ne ni moom lañ fas yéene waxtaane mu di conflit israélo-palestinien léegi lañ koy wooyee conflit israélo-palestinien waaye ca ndoorte la woon du woon Palestine ak Israël rek Israël la ak mboolem réewu arab yi dem na sax ba nekk Israël ak mbooleem àdduna bi daanaka waaye loolu bu fekkente ne nii dañ ko bëgg leeral dañuy delluwaat ci mboor histoire Euh, bërëb bi ñuy xëccoo mooy ban muy Jérusalem ndax mbir mi yëpp coow li yëpp Jérusalem la lan moo nekk Jérusalem lan moo di particularité am ba tax euh, xëccoo di fa am ñi ko séq kan ak kan la banu Israël ak euh, askanu arab ba yàgg mu doon askanu Palestine banu Israël ñooy ñan ak fu ñu bàyyi ñaar yooyu dafa posé ñaari question moo di cosaanam dafa lëkku ci wàllu diine waaye itam dafa lëkku ci wàllu aada ak cosaan di évoluer ba dem ci wàllu làkk ak xeet di évoluer ba dem ci wàllu suuf loolu lépp nag géopolitique di ko ëmb ko bu nu bëggee xam béréb bi ñuy xëccoo mooy ban nun jullit la ñuy delluwaat ci alquranul karim jël ci ñaari aaya benn bi mooy subhaanalladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaram ila almasjid alaqsa aqsa alladi barakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir foofu li nu fi soxal mooy wa barak naa xawluhu tund woowu nga xamante ne nii moo di vallée du Jourdain ak Judée nga xamante ne nii lu bare bare bari ci mboor dafa wàcc yàlla dafa def ay diine yu bari daje fa ci baytul maqdis béréb ba nekk béréb boo xamante ne nii ay jeexital yu bari ci wàllu mboor dafa nekk li ci gën a yéeme mooy bi nu alxuraan de misaal béréb bi ci saaru ruum lañu ko def alif lam mim gulibati ruum si adnal ard loolu histoire euh, diine wax na ko ay lu mat junney at te science xamul loola lu mu doon bi ñu demee ba ci at yeenu génn rek la ñu soog a natt niveau géej gi fi ma toll ak niveau euh, baytil maqdis fan la toll ñu gis ne mooy parti bi nga xamante ne nii moom moo gën a suufe ci kaw ci àdduna bi bañ ko natee trois cent treize mètres la daf ñuy dal di indi li suñu jullit yi nga xam ne kon mbóota nga fa leneen la nga xamante ne nii moom moo fa nekk moo di mur des lamentations boobee nga xamante ne nii yawut yi tey seen béréb bu sacré la béréb boobee foofee lañuy Seydina Jibril taxawoon ak alburaq ñu xaar yonent bi mu dugg biir masjidil aqsa julli fa ñaari rakk ñu soog a jël laylatul israhi wal mihraj kon mu mel ni béréb ba ginnaaw diine yépp daf faatase bu fekkente ne ni kenn ci diine yi bëgg naa jël loxoom teg ko ci kaw béréb ba ñeneen ña ca des force ñu fipp rawatina nag jullit yi banu israil moom nga xamante ne ni moom mooy xëccoo foofu te bëgg ci teg loxo te nekk na nag ci tànki teg ko loxo ci jamono yi nuy wax la nga fa ñu cosaanoo moo di ci yent yàlla yaquba alquran génne na baatu bani israila ay yooni yoon waaye bani israila ak israila ci benn aaya la ko génne kullu taamin kana xellun li bani israil illa ma xarama israila ala nafsi min qabli an tunazala tawraat bani israil doom yàlla israil mooy seen baay mooy yontu yàlla yaquba kon bu ñu dee topp ñawteef yi nga xamante ne nii xeet woowu taqoo na ak moom dañuy delluwaat ci yontu yàlla yaquba ak pexe ma nga xamante ne ni euh, goneem ya pexeeloon nañ ko yontu yàlla yusufa ak rakam ja du euh, nu fi nekk di ko def li xam naa ñun fi jiitu wax nañ ci wàll woowu waaye foofa la ñaawteef tàmbalee ci seen biir nañu rey yusufa ñeneen ñene déedéet nañ ko sànni ci teen bi yàlla mi nga xamante ne ni yaxtas bi rahmatihi man yashaau wallahu dul fadlil azim fexe ba yusufa génn foofa donte jaar na ci nattub kaso ñu yóbbu ko mu nekk ca buurub misra ba indi ak njobootam ci tënk ba ñu ñëwee ànd ak seen baay nekk fa ak yonent yàlla yuusufa ba mu leen fa bàyyee ak ba ñu fa nekkee yépp ñu ngi wéyal di def ay ñaawteef loolu moo leen jural Firawna bi mu ñëwee mu jàpp leen def leen jaam doon nañ leen jaay naka jekk sax nag waaye njaam gu mag gi nga xamante ne ràññee nañ ko ci ñoom ak mbugal yu tari kooku ñu ngi ko dundee woon ci jamonoy na moom lanu alquran di nettali naan وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم بودي مكسار بقرة آية ينفك أجروم يار بتيمير كيلو لولاي نتلي war ya nga xamantene war nañ ko yent yalla musa war nañ war ya nga xamantene war nañ ko waaye terewul ñu dem banaa ko lan nasbir ala taamin waxid fad'u lana fad'u lana rabbuka يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وحدثها وبصلها ku ñuy jox yàpp ak ndox mu sedd ngay laaj batañ si ak lu mu xeetoo ca loola booba sag mbaadoo la fees na loolu lépp dafay wone ne xeet woowu nekk nañ xeet woo xamante ne nii du ñu sàmm kóllëre mbañeel dafa nekk seen biir xol te itam toroxal doomu aadama nekk na loo xamante ne nii bëgg nañu ko euh, li nga xamante ne nii moom moo ci nekk mooy am na ñoo xam ne dañuy def njuumte ne banu Israël dañoo jóge ci àll ba ñëw fa fekk ci fa ay jàmbur banu Israël foofu lañ mës a dëkk naka jekk ci tund woowee nde ji mooy amoon nañ fa ak nguur bu ñuy royaume de Judée ñu ngi avant Jésus-Christ Nous sommes ba avant Jésus-Christ ci am indépendance parce que bi nga xamante ni en 40-140 avant Jésus-Christ booba ay vassal lañu won dañu bi ñu demee ba 63 avant Jésus-Christ Pompée profito ci li nga xamante ne nii mooy révolte ba fa amoon euh, te askanu Makabe jiite woon ko dal di teg loxo ci dëkk ba def ko protectorat ci loolu lañuy ñuy wéy ba moins 63 avant Jésus-Christ booba dañ faa def benn temple mooy ñaareelu temple bi nga xamante ne nii defoon nañ ko foofa di fa def seen yëf yi nga xamante ne moom lañ daan def naka jekk li ma bëgg a fàttali foofu yëf yooyu ma nga cosaanoo ci jamono yontu yàlla suleymaan yàlla nett na ko ci bil alquran ba mu ne wa ma kafara suleymaan walakin shayatini kafaru xeeti xam-xam yooyee ak jëfin yooyee nga xam ne moom lañu daan def te nguurug yontu yàlla suleymaan te suleymaan daganalu ko woon moom lañu indi lenn li ñu génne ko ci ab téere lenn ñu daa ko def ci seen temple booba temple booba ñu ngi ko tabaxoon

que ñoom ci seen bopp dañoo tasaaroo ñee ci ëpp Grèce lañ demoon waaye am na ci it ñu nga xamante ne nii ña nga woon Afghanistan am ñi nga xamante ne nii ña nga woon ci yeneen réew yu Europe ñu tasaaroo fa kenn ku ci nekk ñàkk réew ma nga xamante ne nii moom nga nekkoon loolu dafa juróon benn sentiment mooy dañu leen génn dëkk ba te jullit yi am nañu fu ñuy euh, aji màkka chrétiens yi dañuy aj si foofa ñoom itam ginnaaw dañu leen a génn dëkk ba ñoom war nañoo jóge fa ñu nekk di ñëw di aj si foofee ci Jérusalem loolu mooy sentiment religieux bi nga xamante ne nii animé woon na leen ca njàlbeen bi loolu amee ci la ñu dajaloo bi loolu amee ci lañu dajaloo ñoom askan wa dal di commencé lal ay pexe nag yoo xamante ne dinañu mën a jóge fi nga xamante ne nii foofa la nekk di ñëw pèlerinage foofu ci Jérusalem euh, am na ay messi yu bari yoo xamante ne nii feeñ nañ ci mën nañ leen cee dimal Sabbatai Sedi Jacob Frank ak Judah Ben Shalom ñu ñoo doon jiite gaa nga xamante ne dañu daan jéema a jóge ci fa nga xamante ne foofa lañ nekkoon di jéem a eh, ñëw eh, aji ci Jérusalem eh, bi ñu demee ba nga xamante ni àgg nañ ci atam 1085 ku ñuy wax Juda Alevi jiite na mbooloo ñu ne dañuy ñëw aj ci waaye yàlla dafa dogal bi ñu agsee ba Égypte ñu dem faat ginnaaw ba benn Messi bu ñuy wax Yaciel de Paris ak Naxman Nabi ak Joseph de Caro ñoom itam jéem nañ ko bi ñu demee nag ba nga xamante ne ni egg nañ ci dix-huitième siècle ki nga xamante ne moom lañuy wax Judas Heysel jiite na mbooloo moo xam ne junniy nit la ñu woon ak ñetti téeméer waaye yàlla dafa dogal it juróomi téeméer ya dee ci yoon bi jamono jooju dafa méngoo ak nationalisme commencé di dugg biir Europe rawatina Irlande wala Allemagne wala fu mel ni Pologne ak jëf ju ñaaw ji nga xamante ne nii moom la ñu làmboo moom askan woowu dal di commencé feeñ fépp foo xamante ne ni foofu la nekk ndax askanu yawut bala noo xam seen mbir dëgg seen diine dañu ko wér ci benn téere bu ñuy wooyee tawraat waaye nag dafa am ci beneen loi yoo xam ne ay loi lañu yoo xamante ne dañ leen koo tërale ñu di ko wooyee talmud dinaa leen ci génneel lu tuuti ba ñu xam ñaawteef yi nga xamante ne moo waraloon Europe ba ñu demee ba dix-huitième siècle ñu di leen andil problème lan moo ko waraloon moo di koo demee ci Talmud Zahra 1 131 a dafay wax ne la képp koo xam ne du juif sobee nga buy dox ci kaw suuf waaye xeetu juif ñoo di xeet bi nga xamante ni ñu tiim mboolem yeneen xeet boo demee ci Zahra 243a seen téere daf leen di wax ne leen faagaagal képp koo xamante ne bokkul ci xeetu jullit ab sarax la boo xamante ne ni yàlla da koy gërëm boo demee ci Zahar 128 b 39a daf leen di wax ne leen ëllëg si biir yow mal qiyaamatil akbar bu ñu àttee nit ñi ba pare ki gën a am place bu kawe fa yàlla mooy ki ëpp loo xamante ne faat na ko ci bakkan yoo xam ne du bakkanu juif ñeenteelu àtte ba daf leen a wax ne leen moo di batxa ak batra 54 b mu ne leen képp koo xamante ne nii nekkoo ab juif liggéey sa alal mu lew la bu fekkente ne nii ab juif da ko soxla laaj la ko juif ba moo la ci gën a yey jàngal nañu leen it ca biir téere ba ne bu fekkente ne nii da ngay dox ci àll yow yaxut bi ba romb koo xamante ne dafa yoor ak buum ci teen dugal ko fa ngir bëgg am lu mu soxla ca biir teen ba roccil buum nga ndax mu dee ca biir amoo ca bàkkaar seen ab téere daf leen di jàngal ne jigéen ju dul yawut yawut du ko takk waaye yawut mën naa tëdd jigéen jeneen ju dul yawut donte ñetti at la am du ci am bàkkaar fenal nit mu dem kaso dagal na ci ñoom ndax nit jël alalam dagan na ci ñoom waaye ñoom ci seen bopp sax dañuy reyante ci seen biir ndax bu fekkente ne nii ab yawut dafa am aw nag jënd ko mu lew ko mu am jaam bu dul yawut bu jaam ba ratee ca nag wa jox ko yawut ba mu naan yawut ba dafa bàkkaar dañu war a faat ba kanam loolu rek lañ leen di indil ci tënk boo xamante ne nii seen ab téere moo leen koy wax te loolu la ñuy jëfee ba tax na ñoom amul benn sa respect boo xamante ne mën nañ koo jox weneen askan woo xamante ne nii bokkul ak askanu yawut bu ñu sukkandikoo ci loolu nga xamante ne nii moo di seen ab téere da gis ne ñoom fu ñu dem te toogi fa jikko jooju nga xamante ne moom la ñu wax dañuy dal di réeroo ak ñi nga xamante ne nii ñoom lañu ñu waaw bi nga xamante ne nii nag loolu am na nga xamante ne woote nañu benn déclaration ne dañoo bëgg a ñibbiwaat euh, fa nga xamante ne foofu lañ dëkkoon te rabin yooyu ma la waxoon nekk ñi nga xamante ne ñoo jiite yoon woon dafa am ay association yoo xam ne commencé nañoo taxaw di liggéey liggéey ba di dajale xaalis di jënd ay suuf di saxee ni ñu ñibbiwaatee ci réew benn association lañ leen ci limal mooy alliance israélite universelle ñoom ñoo dem ci njiital Charles Netter wut benn école boo xamante ne nii ñu ngi ko doon wooyee Mikve Israël te du wat dëkk ba nga xamante ni moom lañuy wax Jaffa loolu mooy li nga xamante ne nii moom lañ njëkk te loolu dafa am tegtal bu muy joxe ci seen la ñu ndax ku dem ci dëkkab jàmbur. wut fa suuf di fa pare day pare ngaa nangu suuf ak jàmbur euh, moo tax bi ñu demee ba 1870 ñu créé ñaar fukki dëkk yoo xamante ne ni ci biir Palestine lañu ko créé dëkk yooyee ak école boobee te loolu lu jara jàpp la mooy xaalis ba nga xamante ne ni moom moo ko daan doxal dafa jóge woon ci kilifa goo xamante ne ni ñépp xam nañ ko euh, muy benn allemand juif boo xamante ne ñu ngi koy woo Rothschild banque yi gën a mag ci àdduna moom bokk na ci ñi ko moom bu ñu fàttalikoo daana dem ba nga xamante ne sax ci mi atam 1832 daana lebal xaalis Vatican ndax bari xaalis boo xamante ni nii bari na ko xaalis kookee moo nekkoon ci ginnaaw ña nga xam ne ñoo moomoon école boobu sos fa ay kër di jënd ay suuf ndànk-ndànk ndax xam ne bu ñu dajalee ci suuf lu bari ñoom ci seen bopp di dañ mujj am la nga xamante ne nii moom lañuy ñuy wut bi loolu amee ci la ñu jóg nag dal di taxaw ne dañoo bëgg a créer li nga xamante ne nii moom la ñuy wax ab état bu Palestine loolu ma nga ame woon ci congrès ba nga xamante ne ni ñu ngi ko amaloon ci ñetti fan ci weeru septembre 1897 ca Bâle te Théodore Herzl euh, jiite woon ko ñu fondé fa li ngay li ñuy ooyee organisation sioniste mondiale tur woowu mi ngi feeñ ci 1960 la ko taxal na jóg mooy création foyer national juif boo xamante ne ni dañ koy dooleele ay action diplomatique yoo xamante ne ni ñoom ci seen bopp dañu koy dal di euh, taxawal lu jiitu loolu 1891 benn euh, nit ku ñuy wax William Blackstone dafa bind ab pétition jox ko président bi nga xamante ne moo nekkoon Amérique ca jamono jooja moo di 23e président américain de Harrison foofu itam dafa am solo moo tax ma dellu si parce que pétition booba ci ñeenti téeméeri nit yi nga xamante ne nii signé woon nañ ko am na Rockefeller Rockefeller plutôt Rockefeller moomu ñëpp xam nañ ne beneen banque bi nga xamante ne nii moo gën a rëy ci àdduna ak ñi ëpp milliardaire bi jiit ci àdduna moom moomee la donc kooku moo bokkoon ca nga xamante nii jàppale woon na tànk William Blackstone moom euh, ba nga xamante ne nii dina mën a euh, eggale la nga xamante ne nii moo di jaxeem maanaam samp ab foyer foofee nga xamante ne moo di Palestine euh, loolu bi mu xewee àdduna bi yépp xam ne lii nga xamante ne nii moom la ñuy fexe dana jur ëllëg coow bi ñu demee ba nga xamante ne nii première guerre mondiale éclaté na te ñi nga xamante ne nii ñooy Angleterre te gémboon askanu Israël bokkoon ca ñi nga xamante ne ñoo doon xeex eh, am na ca kenn ku ñuy wax Lord Balfour Lord Balfour moom ku jar a bàyyi xel la ci lii nga xamante ne moom la ñuy ndax moo doon ministre affaires étrangères bu Angleterre te jooja jamono ci la bind benn lettre boo xamante ne euh, mu le 2 novembre 1917 jaarale ko ci Rothschild la doon wax euh, yónnee ko euh, mbootaayu xeet yi di sàkku ñu sos benn état foyer vif foofee nga xamante di Palestine ba ñu demee nag ba nga xamante ne ni egg nañ mille neuf cent dix dafa amoon benn conférence boo xamante ne nii moom la ñi nga xamante ne ñoo gañee xeex ba daje woon ca Versailles ca Paris diggante fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier de mille neuf cent dix ak ñaar fukki fan benn ci weeru janvier mille neuf cent vingt ngir seet naka la ñuy li nga xamante ne moo di seen ndam ak tëral jàmm ci àdduna bi conférence boobee yawut yi dañ faa yeble benn délégation di sàkku ci ñoom ñu sóoraaleel leen euh, création benn état foofee nga xamante ne ni moom moo di Palestine ba ñu jógee ca conférence Paris ba te ñu nangul leen fa la nga xamante ne ni moom lañ fa doon sàkku ñoom dañu ne woon nañu ko dëggal te ñi nga xamante ne ñoo ëpp doole ci àdduna bi ñoom ñoo war a daje bu ñu dajee ñu dëggal ko bi ñu dajee ci beneen conférence ba ca topp mooy Sanremo nga xam ne Italie lañ ko defee ma nga amee ci fukki fan ak juróom-ñeent ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août 1920 la ñu fa doon euh, tabax. moo di territoire yi nga xamante ne ay territoire ottoman la ñu woon de tasaaroo mu di Palestine di Syrie ak di Mésopotamie ca Irak dañu leen di seddale boole ca Liban ak Syrie donc ñu tëral ñaari mandat mandat bu njëkk bi Palestine Syrie ak Mésopotamie ca Irak ñu ngi ko joxoon empire britannique ñoom ñoo ko géré woon Liban ak Syrie ñu jox ko France boobee lañu daganal la nga xamante ne nii moom la yow ci doon sàkku ca conférence su Paris ba ca 1919 ba nga xamante ne ni nangu nañ leen loolu nag ca la arab yi dal di tàmbalee ñoom itam jóg xam ne fi mu nekk ginnaaw lu mel noonu taxaw na te ay borom doole ñu ngi leen di jàppale soo boo ñoom itam ñu jóg ki jëkk a jóg ci ñoom parce que arab yi dañ leen doon séddale ñaar ñu ñëw mooy ay radicaux ki leen jiite woon mooy mufti ba mufti bu Jérusalem njiite ko wax Hajj Amin al Husseini ak euh, ñi nga xam ne ay modere lañ leen doon wooyee te famille bii nga xam ne mooy bi moo leen jiite woon euh, ba loolu amee mandat bi nga xamante ne ni moom lañu ñu euh, créé ca Sanremo dafa indi ay ponk yoo xamante ne moom la tëral daf ne foyer ba nga xamante ne moom la ñuy créer dafay am benn bu jëkk benn institution lu mel ni assemblée lay doon ñu ngi ko tuddee foon ACFATHA Nefari beneen ba ca topp mooy agence vive moo doon exécutif état ba beneen ba ca topp moo doon conseil national ba ñu di ko wooye yow réew mi mu yor administration ba éducation ba affaires sociales yi ak santé ba waaye dafa fekk ne ab dogal la rek boo xamante ne wéeruwul ci doole bu ko defee jafe na ñu tëral ko waaye ba ñu demee ba ca kanam ci lañu jël la nga xamante ne moo doon assemblée bu njëkk ba wuutale ko ak assemblée bii fi nekk tey ci la turu Knesset juddoo ñu dal di commencé nag di am doole doole ji dafa am fu ñu ko wéeroon ndax ñoom bi nga xamante ne ni tëralal nañ leen lool te ñu xam ne arab yaa ngi tàmbalee bañ dañoo dal bi dem sos ca 1920 benn groupe armé bu ñuy wooyee Agana boo xamante ne nii li nga xam ne moom la ñuy taxawal moom moo yor ay ngànnaay di ko défendre mandat bi nga xamante ne nii moom lañu ñu tëraloon dafa euh, ëmboon ci Jordanie ëmb Jordanie ëmb Golan ëmb Gaza waaye li ci gën a yéeme mooy dafa ëmboon Jordanie bi nga xamante ne ni ca jooja jamono. Transjordanie lañ ko daan wooye waaye dañ koo mujj génnewaat ndax Abdallah mu fa nekkoon moom lañu ñu amoon kersa ci moom ndax ci eh, yi la bokk te am na lu mu tekki woon ci arab yi ba tax nañu mujj génne ca Jordanie bàyyi fa la nga xamante ne nii moom moo ca def ba loola amee nag ci la yawut yi tàmbali di jël seeni nawle yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekkoon ci biti di bi ñu demee nag ba nga xamante ne 1937 jot na ndax bi 1900 bi ñuy laata egg 1937 arab yi ci 1929 la ñu jóg dal di tàmbali nag di xeex xeex nañu 1926 ba 1939 ci la Grande-Bretagne nag dal di xamee ne politique bi nga xamante ne ni moom la mi ngi bëgg a wëlbatiku di ko lor moom ci boppam ndax mu ngi bëgg a yàq digganteem ak arab yi ci la jóg seen ministre des affaires étrangères ba nga xamante ne moom la ñuy wooyee PIL jiite benn commission bu ñuy wax commission PIL mu dem Palestine di gëstu ji li nga xamante ne ni moom moo war waraloon révolte bi nga xamante ne ni arab yi doon nañ ko révolté wu ba mu jógee ca enquête boobee nga xamante ne moom la doon enquête euh, ci la dellu siwaat dal di am ay tegtal yoo xamante ne jox na ko nguur ga tegtal yooyu mooy réew ma nañ ko seddale ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi juróom-ñetti fukk ak ñetti pàcc lay doon ñu jox ko arab yi fukki pàcc yi ak juróom ginnaaw Israël moom am ñu état lu mooy foyer la ñu jox leen ko euh, am na ci ñoo xamante ne ci arab yi nanga woon nañ ko waaye am na ñoo xamante ne nii bañoon nañ ko yawut am na ñoo nangu woon nañ ko waaye am na ñoo xamante ne nii itam bañoon nañ ko yawut yi ñi ko nanguwutoon bariwuñu waaye ñi nga xamante ne ñoo ko nanguwoon ka ca gën a siiw moo di David Ben Gourion kooku dem na ba nga xamante ne sax li taxoon mu nangu ko moo di xam nañ ne suñu faxasee am genn kër mën nañoo lal ay pexe ba nangu la ca def moo taxoon mu nangu loolu révolte arabe boobu nga xamante ne ni moom moom laa la doon wax euh, am na ci kenn ci ñoom Hussein bi ma la doon wax ñoom dañ ko mujj exilé waaye ki nga xamante ne ni moom moo tëraloon ay mbiram ci jihaad ñi di ko woy Azedine Alkasim moom la Hamas tudde banqaasam bii nga xamante ne ni moom mooy xeex britannique yi dañ koo dal di rey ndax dañ faa yónnee ñaar fukki junniy soldaar mu ànd ak agana boobu nga xamante ne ni moom la yow di créé woon ñu des benn alliance bi dal di kaw arab yi loolee moo waraloon coow la nga xamante ne ni moom moo fa amoon waaye bi nga xamante ne ni yenn yow di nangu nañ ko ku mel ni David Ben Gurion dafa am ñoo xamante ne dañoo dem créer la ñuy wax agana bet moom moom mujj nekk Irgun 1938 lañ ko créé ñooñu ñoo dal di tàmbali nag di def ay attentat moo tax bu fekkente ne ni tey jii euh, communauté internationale dañoo bëgg a jàkkaarloog ñun nañu attentat arab yi ñoom ñoo ko fi indi ak terrorisme dafa fekk ne bëgg nañoo suul ker bëgg nañoo suul la nga xamante ne moom lañ defoon démb ak bërki démb ndax mën nañ leen a limal ay attentat yu bari yoo xam ne 1938 euh, Agana def na ko ak Stern benn bi 4 juillet la 5 morts 6 juillet ñu defaat benn bombe ci marché Haïfa ñaar fukki nit ak ah, benn gaañu fa euh, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août marché Haïfa ba tey juróom ñaar fukki nit dee nañu fa. vingt six août ba tey marché Haïfa ñaar fukki nit ak ñeent dee nañu fa ah booba fekk na Hussein ñii ma lay wax ma Allemagne bi ñu demee nag ba nga xamante ne deuxième guerre mondiale éclaté na Husseinu dafa def njuumte mooy dafa dem aliwu ak nag yi ba mu amee la waa Irgun dal di bàyyi euh, attaques yi nga xamante ne moom lañ doon attaqué nit ñi ca Palestine jublu ci nag di attaqué ki nga xamante ne nii moo di Hitler ak ñooñam groupe bu ñuy wooye Stern nga xamante ne nii ëll bu ñu demee ba ca kanam danañu gis ne mooy bokk ci ñi nga xamante ne nii ñooy former armée Israël ñoom itam dal di juddu ñu commencé nag di def li nga xamante ne nii moom mooy seen manin naka jekk maanaam di rey di boom ci biir arab yi waaye itam di ko def ci britannique yi nga xamante ne dañoo dem ba jubóotuñu woon coow la nga xamante ne moo ëpp ci coow lu dox seen diggante angleterre ni nga am ci juróom benn fan ci weeru novembre 1944 ba nga xamante ne ni ministre résident britannique di nekkoon égypte ñu doon ko wax lord moyen euh, ay yow dikk nañ boom ko ña ko ña leen boomoon Égypte dañ leen a atte exécuté leen février 1944 ci la Irgun delluwaat tàmbali ay opération biir Palestine ca jamono jooju ku jiite moo di Menachem Begin te nekkoon na premier ministre bu Israël ci ay jamono léegi ak Irgun di xeex ak anglais yi ba ñetti téeméeri soldaar ak fanweer ak juróom-ñett dee ci diggante 1944 ak 1948 Angleterre yebal na fa eh, téeméeri junniy soldaar waaye taxut mu mën a ñoom dara bi ñu demee nag ba 1947 la anglais yi xam ne mandat yi nga xamante ne jox nañ leen ko pour ñu taxawal état wu Palestine ñu ngi leen di bëgg a loo xamante ne ñoom seen bopp xamuñu ko ñu dal di danañ jël eh, mandat bi delloowaat ko ñi nga xamante ne ni ñoom lañu ko joxoon ndax mandat bi ginnaaw commission PEL moom dafa wax ne territoire bi nañ ko séddalee 85 pour cent ci arab yi quinze pour cent ci israël yi biñ demee ba euh, britannique yi jot mandat bi dañoo dikk commission euh, PEL soppiwaat ko xaajalewaat territoire bi 55 cinq pour cent yi maanaam la ci ëpp ñu jox ko juif yi 40 pour cent yi ñu jox ko arab yi Jérusalem ñu def ko zone internationale waye li ci gën a ne yéeme mooy te loolu mo jur coow li lepp tay moy Lord Balfour mi nga xamante ni ci 1917 mom mo tambali won bir mi bam jur mandat bi 1947 ba muy lim warteef ya daf limoon ne les droits civils et religieux des populations locales nañu ko respecté waye tuddul les droits politiques tay ji bo boo euh waaw bi ñu demee ba nga xamante ne ni euh, egg nañ ci la quatorze mai quarante huit ginnaaw loolu ma leen libal nga xam ne Ergun ak Agana def nañ ko ci britannique yi euh, ba britannique yi delloowaat colonie bi mandat bi nga xamante ne moom lañ leen joxoon ci Nations Unies ne mënatuñu koo yor ci la Weizmann ak euh, David Ben Gourion proclamé wu état Israël le 14 mai 1948 armée arabe yi. mu di Transjordanie mooy Jordanie bii tey Égypte Liban Syrie Irak dal di jël seen ab armée dugal ko biir Israël waaye tamit Ben Gurion booba Israël amagul armée boo xamante ne dafa booloo dafa dal di woote ñetti bànqaas yi nga xamante ne ñoo doon xeex mooy Irgun Stel ak Havana ak Agana plutôt ñu formé euh, armée bi nga xamante ne tey jii moom lu ñuy wooye Sahal arab yi la ñu ci xeex booba euh, gañe boo xamante ne ni gaaw na lool sax biñu démé ba atam 1966 benen xeex dox na diggante Égypte ak Israël ndax Égypte mo bloqué ay bateau israélien ci détroit bu ñuy wax Tiran waaye loolu itam euh, Israël dafa dal di song Égypte song bu gaaw le 23 mai 66 euh, dialogue euh, nangoo péninsule Sinaï euh, Syrie dal di attaqué moom itam Israël waaye dañu ko dal di gagné moom itam nangu Golan syrien Jordanie aussi ñu gagné ko diggante diirëb juróom benn fan daal ñetti armée arabe yooyu yëpp Israël jaar na ci seen kaw bu ko defee foofu nag la mbir mi dal di tàmbalee Israël tam population dafa dal di commencé soppeeku ndax ñi bari léegi ñi ngi ñëw jóge fu nekk ñi nekkoon Grèce ñi ngi ñibbisi ñi nekkoon Allemagne ñi ngi ñibbisi ñi nekkoon Inde ñi ngi ñibbisi ñi nekkoon Afghanistan ñi ngi ñibbisi ñi nekkoon Yémen ak Syrie ak Iran ak Afrique du Nord ak ba Union soviétique ñépp a ngi ñibbisi ba population bi dem na ba nga xamante ne lii fi mu nekk rax na lool ci noonu la ñu commencé am ay jafe-jafe ñoom ci seen biir ci wàllu koom-koom ñoom israéliens yi ndax xeetu Israël ci jamono jii nu nekk da koy séddale ñetti xaaj xaaj bu njëkk mooy séparate yi nga xamante ne nii ba ñuy toj seen empire ba ma la doon wax mooy empire hasmonéen ñoom dañu faa desoon ñoo di séparate ashkenaz yi mooy ñi nga xamante ne dañoo demoon te ñibbisiwaat waaye am na ñeneen ñoo xamante ne nii ay juif américain lañu ak ay ñoo xamante ne ñëw nañ fa ñoom itam beneen façon xeet lañu la leen mot li moo di falasha yi nga xamante ne ñoom ñoo jóge woon Éthiopie te nekk ay nit ñu ñuul ba tey jii am na fa Palestine sax am na fa ñoo xamante ne ni foofu lañ jóge woon ak Soudan ñoo daan bale xabru yonent yooyu nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci tund wax ba tey jii sax tekkeeguñ fa wax dëgg yàlla da nga xamante ne ni moom la ñu war a tekki ci noonu la mbir mi jaar ba nga xamante ne nii xeex boo xamante ne nii arab mas na ko séq ak euh, Israël Israël mu jël ndam la te li ko waral bu ñu ko xoolee bu baax bu ci Israël waaye ci arab yi la bu ñu fàttalikoo guerre boo xamante mi ngi bi amoon 1966 ba ñu koy waajal armée yi nga daje woon Casablanca waaye bi nga xamante ne ni moom lañu ñu daje ca kaw salle ba di réunion salle bi leen féete suuf ci étage bi am na yeneen arab yu dikk dugal fa kuréel gi ñuy wax Mossad mooy service de renseignement israélien yi fa lañ dégloo ne Égypte lim nar mooy bombardé Israël ñoom ñu dal di jiitu bi avion Égypte di laata jóg ñu bombardé leen ci suuf ba tax jóg ñu loolu moo leen ñàkk loo xeex ba ba fii may wax ak yow itam dafa am loo xamante ne nii dafay rax ca biir xeex ba ndax bilan bi ñu leen di jox dafa am ñoo xam ne Israël moo leen rey waaye dafa am ñoo xamante ne ci na palestiniens yi ñoo leen di reyal seen bopp ndax dañuy xam ne tey jii diw ma nga fanaan béréb sàngam ñu téléphoné armée ne ko diw ma nga fanaan béréb sàngam ñu bombardé këram rey ko loolu ay arab dañu koy def defante ci seen biir te loolu du loo xamante ne nii gan la bu nu fàttalikoo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana defar plan de guerre ba tëral ñenn ci ñoom rocceeku dem wax ko ay noonu am na ñoo xam ne sax nee nañ xareb Xunay mi bokk ak xareb Tabuk bokk nañ ci li nga xamante ni xawoon na faa indi ay jafe-jafe bu ko defee arab yi dañoo nekk ñoo xamante ne nii booloo dafa leen a xaw a jafe lool warante itam ñoom ci seen biir daf leen a xaw a yomb lool euh, boobaak léegi itam Palestine musul nekk ci jàmm organisation des nations unies bi nga xamante ne moo jël relais euh, société des nations diggante 1947 nga xam ne première résolution bi ji lañ ko wote le 29 11 1947 muy résolution 181 bi nga xamante ne moo waxoon ni ñaari état ñoom ñoo fay am te Jérusalem nekk juridiction internationale assemblée générale bi moom moo ko jëloon. Euh, moom ak résolution cent quatre-vingt-quatorze droit au retour ne ñi nga xamante ne nii ba état wu Israël amee dañoo génnoon moom la palestiniens yi di wax nakba catastrophe euh, amat nangu nañu seeni kër amatuñu fu ñu dëkk ñu toxu ñiy daw Liban ñiy daw tasaaroo ci yeneen réewu arab yi ñooñee nga xam ne dañoo demoon Nations Unies dafa jël la résolution cent quatre-vingt-quatorze ne Israël ñooñu dañuy ñibbisiwaat waye da nga leen di jox ay compensation financière ñaari résolution yi nga xam assemblée générale des nations unies ñoo ko wote amul lenn loo xam ne Israël respecté na ko ci ba ñu fa jógee voté waat nañu fanweeri résolution ak benn diggante 1947 ak 2002 euh, waaye ak 2002 waaye amul benn yoon boo xamante ne Israël respecté na résolution ba te loolu itam bu ñu dikkee ci wàllu géopolitique Nations Unies moo ko tey ndax bu fekkente ne ni dañuy jël résolution ñoom am nañ kuréel bu ñuy wax conseil de sécurité moom moo doon jël fanweeri résolution yi ak benn bu fekkente ne résolution yi dañ koo jëloon placé ko ci chapitre sept bu conseil de sécurité des nations unies bu ñu ko tegee ci kaw Israël ñu voté ko amul kenn koo xam ne mënta tee ñu appliqué ko parce que boo ko appliqué wul usage de la force moom moo ciy tege loolu lañ defoon Yougoslavie ba autant dem di ko bombardé waaye li nga xamante ne ni moom moo lay won jafe-jafe yi nga xamante ne moom la arab yi am mooy waxtu woo xamante ni Nations Unies daje na ñu bëgg a jël ab résolution bëgg koo placer ci chapitre boobu di chapitre sept euh, kii nga xamante ne ni moo di faranoom nii di ko wax États-Unis te mu am droit de veto moom mooy dal di wëlbatiku teg ko ci du jàll droit de veto boobu nga xamante ne ni moom la Nations Unies jox juróomi membre am moo di li nga xamante ne ni moo jëkk a jaadoo di ci àdduna bi ndax réew yi li ñuy bari bari bari bu ñoom ñépp àndoon ci benn boor États-Unis mën na koo neenal France mën na koo neenal Chine mën na koo neenal Angleterre mën na koo neenal te nekk na loo xamante ne rafetul ndax lépp loo xamante ne bëgg nañ koo jël teg ko ci kaw Israël tey kenn ci ñooñu dina jóg jël euh, droit de veto teg ko ca ba nga xamante ne loolu dootul mën a tegu ci kaw Israël euh, loolu moom moo nekk ci Nations Unies mu di loo xamante ne ni ñu ngi koy jooytu nit ñaa ngi wax nañu fexe ay réforme ci biir Nations Unies gën a yaatal conseil de sécurité bi droit de veto bi ñu xoolaat ko ba nga xamante ne yeneen réew dinañ ko am waaye la war dëgg dëgg dëgg mooy droit de veto bi ci boppam ñu dindi ko ndax euh, bu fekk li fekk ma nga fay am dina am loo xamante ne nii kenn du ko fa mën a jëlee euh, dafa am loo xamante ne nii xeex bi bi mu évoluer dafa egg le 19 décembre 1987 euh, bala nu ciy dugg dañuy dem ci 1982. 1982 fait na Yasser Arafat ma nga woon Liban def foofa quartier général le 6 juin 1982 ci la armée euh, euh, Israël ginnaaw bu fa jógee 1978 ca la fa le 6 juin 1982 bombardé la nga xam ne quartier général Arafat yàqaate la nga xamante ne mooy dëkk ba ba nga xamante ne Arafat ci boppam dañ koo mujj waa France ñoo ko jox ab bateau communauté internationale bi yu dar ko ñu indi ko Tunisie mu def quartier général ca suba sa la massacre bu mag ba nga xamante ne moom la ñuy jooy muy massacre Chabra ak Chatila foofee la amee woon ñu boom fa ay gone ay jigéen ak ay màggat yoo xamante ne nii boom gañ leen boom ñaaw na lool 1982 bi nga xamante ni OLP jóge na foofu ñëw Tunis taxut mu mucc ndax biñu démé ba 1982 1985 Israël dafa dal di yebal ay ab armeem ci benn fan ci weeru octobre 1985 mu def ab raid ca quartier général bu OLP ba nga xamante ni moom moo nekkoon ci Tunis. rey fa ñu baree baree baree bare la nga xamante ne ni moom la ca Nations Unies teg moo di génn benn résolution bu ñuy wax 537 condamné ko waaye taxul mu ñu jël benn daan ko ci kaw Israël loolu 1985 la woon euh, OLP toog foofa di mu euh, bi mu demee ba 1988 benn commando la Israël yebalaat mu delluwaat Tunis dal di rey ki nga xamante ne ni moo di abu jihaad nga xamante ne moom moo toppoon ci Yasser Arafat loolu itam mujjul fenn nee na lu tax mu rey ko la ko jiitu fukki fan juróom-ñeent ci weeru décembre dafa am benn camion militaire boo xam ne Israël ñoo ko moom mu gis ay gone yi Palestine yoo xam ne ñu ngi dugg ci seen oto di doxantu camion militaire ba foncé ci seen kaw rey ci ñeenti nit gone ya nga xamante ne nii dañoo génnoon di sànni ay xeer premier ministre yi di Yitzhak ba nga xamante ne moom moo fa nekkoon dal di sant armée ba ne leen damm leen yaxi gone yi nga xamante ne ñoo di sànni ay xeer briser les os des enfants palestiniens loolu moo doon phrase ba mu waxoon loolu la mu jur moo di benn commandant bu ñuy wax maire dem na ci benn dëkk bu nekk ci wetu Khan Younes jël fa fukki nit ak juróom ñaar yeew leen damm seeni tànk damm seeni loxo bàyyi leen ñuy métitlu ba mujj mu gees kenn ci fekk mu dóor la bal fetal te suba sa di la bax atam 1987 vidéo baa ngi ci nag bi di nga gis ay soldaaru Israël yoo xamante ne ay xeer la ñu jël di damm loxoy gone ay Palestine ca dëkk ba ñu naan jafa muy loo xamante ne nii ñaaw na lool communauté internationale bi di ci teg seen bët te amul ci kenn koo xamante ne nii wax na ko ba ñu demee ba 1994 lañ su ko créé autorité palestinienne ne léegi op euh, autorité lañ ko def observateur lay doon ci Nations Unies bi ñu demee ba 2013 euh, fekk euh, la ñu créé état bi nga xamante ne moom la ñuy wax état Palestine waaye dafa am lu ko jiitu loo xamante ne nii ñaawoon na lool. loolu itam communauté internationale bi yépp ña ko doon xool waaye amu ci kenn ku ca wax dara loolu moo di intifada bu njëkk ba loolu mu ngi jeexa woon comme ni ma leen ko waxee ginnaaw bu mu tàmbalee benn juróom-ñeenti fan ci weeru décembre 1987 jeex fukki fan ak ñett ci weeru septembre 1993 juróomi at ak juróom-ñeenti weer ak ñeenti fan Yitzhak Rabin ak Yitzhak Shamir côté Israël Abu Jihad ak Marwan Darbouti côté Palestine wax naa la ne Abu Jihad dañ koy mujj rey ca quartier général bi OLP ba nekk ca Tunis loolu Israël moom moo ko def euh, li jeexal boobee nga xamante ne ni ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci nitu Israël dee nañu fa junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar dee fa ci wàllu Palestine li ko jeexal mooy Oslo ya nga xamante ne ni lay sar Arafat si woon 1993 bi loolu amee 1994 ci lañu créé autorité palestinienne ci la Yasser Arafat door am possibilité am ben palais bu ñuy wax Mukata

foofee lañ koy seetsee mu tëju ca diir waaye nee na du génn nañu daaneel bâtiment bi ci kawam rey ko waaye moom du génn loolu am na fi bi ñu demee ba deux mille ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre deux mille saay-saay bu ñuy wax Ariel Sharon booba opposition la nekk ci Israël xëy xëy benn jour bëgg tooke dal dinay day dem baytil maqdis ca masjid al haram mu def ab visite euh, xale yi taxaw ne ko loolu bu fi amee moo di intifada deux euh, jël na ci ñoom parce que dem na deux mille ba deux mille junni ak juróom benn fukk ak ñaar Israël dee nañ fa ñetti junni ak juróom fukk ak juróom ñaar ci wàllu Palestine fukki xeex ak juróom benn Israël séq na ko ak arab yi diggante 1987 ak 2019 waaye arab yi mosuñu cee gañe benn xare li ko waral itam dogalum Nations Unies la ndax bi nga xamante ne nii euh, Israël dikk na créer li nga xamante ne nii moom moo di état li nga xam ne moo di wàllu ngànnaay Nations Unies dafa def embargo Palestine mënuñoo am armée donc mënuñoo am ngànnaay xeex te ca jooje jamono France ak États-Unis ñoo dimbali Israël ba mu am bombe atomique boo gisee tey jii coow li tar seen diggante ak Iran te jiitu lu ko jiitu woon mooy digg seen diggante ak Irak ndax Saddam Hussein Euh, dafa demoon moom itam ci koo xamante ne ku farlu woon la ci jàppale Palestine te da defar ay ngànnaayu boppam te amoon na ay ngànnaay bari na doole euh, ci lañ ko dal di fexeel fexe mu njëkk te moom sax xëy na booba bàyyiwu ci xel ndax bi Ayatollah ni jëlee nguur gi Iran 1979 dañoo dal di jël Saddam Hussein dalloo ko ci kaw euh, Iran néewal dooleem moo tax 1991. ñu dellu soit ci kaw Saddam Hussein euh, dal di tasaare réew ma moom ci boppam ñu rey ko euh, jël seen loxo teg ko ci kaw réew ma bu ko defee Israël dal di mën a am jàmm ndax amatul ku am kàttan koo xam ne dina mën a dal ci kawam ëllëg ak si biir loolu ab raison la woon ci li tax ci dal ci kawam waaye leneen li nga xamante ne moo taxoon ñu dal ci kawam itam wàllu diine la euh, seizième siècle quinze cent vingt cinq exactement Genghis Khan àndoon na ak mongol yi ñu dikk dal ci kaw Irak boroom xam-xam yi ngi nettali ne keroog géej euh, dexu Efrat couleur ba dafa soppeeku la ko soppi woon mooy téere yu mag ya nga xamante ne nii dajale woon nañ ko neuvième siècle ndax neuvième siècle dafa am loo xamante ne nii euh, Ben Malik def ko fa créer woon muy benn commission boo xam ne juróom benn fukki nit la ak juróom benn ñu doon wër àdduna bi képp koo xamante ne gis nga ab téere bu ñu bind muy wax ci xam-xam ak làkku